mbokk yi salaamaaleykum wa ñu ngi leen nuyu di delluwaat ak di leen siyaar euh, di leen daal euh, ndokkalewaat ci li nga xam moom mooy ci weer gu tedd bi ñu nekk ak euh, guddib laylatul xadr bi ñu génn suñu borom yàlla na nangu ñaan yëpp yal na nangu ñaan yëpp waaye incha allah rek ñu jeexal koor gi ci jàmm ak salaam ñu ngi am tey suñu benn gan Serigne Moustapha Saliou bokk ci njabootu Serigne Saliou sëw tey mu fi ñëw teew ñu am lu ñu war a waxtaanee muy lu am solo muy yoonu murit loolu la ñu fas yéene waxtaanee ndaxte am na loo xamante nii war nañ ko ci fësal ndaxte tey eh, lañuy anniversaire gannaaw rek moom ku tedd ki bi mu wootee ci yoon boobu noonu kon tey am na lu bëri loo xamante ni mën nañu ko tënkal rek ñu daal di ci am tuuti gindeeku eh, sëñ Moustapha maa ngi lay ziar di la daal jàmm bàyyi la nga nuyoog mbokk internet yi ñuy seetaan ci Sénégal. aouzu billahi bismillahi irrahmani irrahim allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana muhammadin nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mbokki julli di mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare fii ci barab bi nga xam ne mooy Sénégal te di leen ndokkeel ci weeru koor wi rawatina bisub laylatul qadri bi nga xam ne ci la ñu jógee démb sëñ Pape Maguette maa ngi lay nuyu tey nuyu sa mbokki internet yëpp te di leen ñaanal jàmm ak tawféex di am mbégte bu baax a baax ci teew ci barab bi nag ngir waxtaanee li nga xam ne moom nga junj sànq muy tey jii di anniversaire bu sosub yoonu murit ñu teew fi nag ci ndigalal sañ Abdou Samad Mbacké moom sëriñ Chouaïbou ngir fas yéene am lu ñu leeral ci sosub yoonu murit boobu nga xam ne tey la euh, anniversaire am sëñ Pape Maguette. Mbacké Balla ñu ngi koy ziar bu baax a baax sëñ Abdou Samad. Euh, demoon nañu fa màggal gi weesu rek waaye macha allah teral nañu euh, di nuyu mbokk taalibe yu nekk foofu yépp ca ca daara ja ñu ngi leen di ziar bu baax a baax euh, tey sëriñ Moustapha di bokk ci njabootu sëriñ Saliou sëriñ Moustapha Saliou ñu koy dalalaat bu baax a baax waaye comme ni ma ko waxee woon sànq rek nga junjaat ko tey jii nii ñuy màggal bés bi nga xam ne moom ku tedd ki sëriñ Touba Xaadimu Rasuul moom mi woote na woon yoonu murit te tey lañu koy màggal mën nga dikkaat ci sos boobu nga xamante ni sos na ko ba woote ci ba tey ji nii fi mu nekk nii yoonu Mouride moom aw taw ab taw euh, tawfiix rek la. Mm-hmm. ok jërëjëf sëñ Pape Maguette. xam naa lu jiitu sax ñuy wax ci sos gi dañ koy laltaaye la rek. Mm. sëriñ bi ak njàlbeenam. Mm. ndax sëriñ bi dafa gane jamono ci askan wu tedd askan wu màgg ñu koy wax askanu Mbàkke mm-hmm. muy askan woo xam ne ñi gëstu histoire réew mi. xam nañu ne Mbàkke jaxate Touré ak xeetu sant yooyu demoon nañu ba bàkkee leen dañoo amoon yittey dëkk ci jàngal alxuraan nga xam ne xam-xam rek moo nekkoon seen yitte Sëriñ Tuubaa bokk ci askanu Mbàkke boobu googu am ay maam yoo xam ne seen yitte jëpp moo nekkoon jàngal alxuraan mu gane jamono ci environnement boobu waajuram yar ko ci loolu mu jàng alxuraan ba mokkal ko di ko jàngale ci daaree waajuram jàng xam-xam ba am xam-xam ci daaree waajuram di bind ay livre sëñ Pape Maguette lu jafe ngi noonu. Mm-hmm. ndax ñun ñu jaar université xam nga ne eh, nekk ci université. di gastu ak a jàng ba bind livre sa professeur teg livre ba mu daan ba mu jàngalee jël bosu bosu étudiant bi mm-hmm. loolu sëñ Tuubaa def na ko laataa moo sos yoon wi mm-hmm. téere bi nga xam ne mooy Mawahibul si mu bind ko ci xam-xamub tawxiid sëñ Mor Anta Sali jàngal na ci ñaari doomam sëñ Cheikh Coro ak sëñ Afe te boobu sëriñ bi boobu mu ngi toll ci jàng mu ngi ci biir daara ji sëriñ bi bi mu jàngee ba am gëstu li mu war a gëstu commencé di bind ay téere téere xam-xam tazawudu sixaari jasbatu sixaari xeetu téere yooyu nga xam ne téere yu ama am solo la nekk ci daaray waajuram di dem ci bàyyi xaadima jaxate kala di kilifa gu mag ci réew mi ñu xam ko mu di ko corrigel wàllum arudam wàllum maanaam poésie di ko di ko di ko teg ci yoon ci ni ñuy wéyee ndax ku teeloon a bëgg way la moom sëñ Tuubaa téere yi mu amoon yëpp mu nekkoon wesar mu nekkoon prose daf ko daan jël def ko di ko wëy mu muy nekk muy nekk poème fekk laataa waajuram di fi jógee sax moom mu ngi woon ci daara ji di jàng waaye Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana nee na sëriñ bi ci dundug waajuram kaana laa yaqumu wala yuqimu nee na sëñ Tuubaa ci dundug waajuram jéemutoon a taxawal dara jéemutoon a taxaw moom ci sax jëmi boppam nga xam ne tawa abihi kalmayti bayna yaday xaasilihi nee na dafa doon topp waajuram rek comme ni nga xamee ne néew bi tëdd ñu di ko sang du wax njëkk la raxas poojum ndeyjoor bi doog a raxas bopp càmmooy bi nee na sëñ Tuubaa la meloon ci kër kër kër waajuram jéemutoon dara bàyyee boppam waajuram nekk ci li ko war muy jàng xam-xam ak gëstu waaye gannaaw bi nga xamee ne ci la fi waajuram jugee nag fekk sëriñ bi boobu mar na yoonu tasawuf ku yàgg gëstu yoonu tasawuf la ndax boobu jëloon na wirdul xaadir bàyyi ma ko joxoon wirdul tijaan it am na ñu waxoon ne jëloon na ko ba tey ba tey sax gëstukat yi xamaguñu jëmm ji mu ko jëlee woon waaye xam na nañu wirdul xaadir moom bàyyam moo ko joxoon sëriñ bi teeloon a bëgg yàlla daan na wax na ko ci ay bayitam nee na walam azal munzu aqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taiba fa jultu bayna ulama wa awliya bi niyati wa amali wa qawliya kay laa yadia umri itaaba bi xusni zannin qaada lixtisaaba daal di wax nag xay xatta saraftu ama ay sachin ila xidmati xayril alamina zil ila nee na man sëñ Tuubaa walam azal musuma deñ mun su aqaltu ba ma ameem xel taaliba di sàkku maarifatan billahi xam yàlla jalla taiba loolu nag jaral ma nee na fa jultu bayna al ulama ma wër ci borom xam yi wal awliya ak wàllu yu yëpp nee na li taxoon ma def ko nag kay laa yada umari itaaba dama doon bañ sama dund gi dund fi 80 yoo xam ne dama fi jógee fekk dund gi ci coono laa ko def te defuma dara lu yàlla gërëm bëgg googu mu bëggoon yoonu tasawuf àggoon na ci Cheikh Mahamadou Amine Diop Dagana bokk ci eh, ñi jege woon sëñ Tuubaa sëñ bi daan ko tuddee aminu sirri aminu bu ñu ko doon traduire tey mooy mooy mooy mooy secrétaire mm-hmm. moom la ko sëñ Tuubaa daan wooyee mu bind lu bari ci histoire yoonu murit Cheikh Mahamadou Amine dafa wax ci téeréem bu mu tuddee an nubzatul mubaraka ne Serigne Touba moo ko nettali ne ko tolloon na ay jamono muy wër yoonu tasawuf gaa ñu baax ñi di xeeñtu seenu mboor ba am naar bu jugee Mauritanie ñëw fi ne ko yow de eh, damaa gis sa Pastef bi xam naa ne am na ci réew naaree koo xam ne boo fa demoon yóbbu fa sa Pastef bi dana la seexal léegi léegi nga doonub Serigne ñibbi si Sénégal doon fi doon fi doon fi représentant Serigne Touba nee na loolu wax ji xaw koo convaincre nee na mu dem tàggu ko ko waxee sëñ Mor daf koo wax benn kàddu dana ko laa tafaal ijlis waqbil ala taallumika sa yatika al xayru fi mahallika incha allah bul ko def toogal fii te jàng yi woo bëgg ba bëgg koo fekk ji Murtani dana dëjj koo Murtani fekk si la fii ci Sénégal xam nañ ne tey lipp lu sëñ Tuubaa bëggoon ba dem di ko fekk ji waajuram moo ko wax loolu waajuram moo ko wax loolu ndax ku gëmoon sëñ Tuubaa la te xamoon ne sëñ Tuubaa ku gëmoon avenir ub sëñ Tuubaa la mm-hmm. ndax yoon wi mu ko teg damay wax waxtu wu nekk ne bu ñu jàpp ne sëñ Mor Anta Sali daf doon tatoné. dafa teg sëñ Touba ci yoon wu leer xam résultat bi sëñ Touba nar a apporté xam fi mu jëm mhm. daawut nangu sëñ Touba di jaxasoo ñu bari loolu Cheikh Modou Lamine Diop Dagana moo ko bind mhm. nee na way juróom da ko daan tëj nee na mhm. dem na ba bis ma naan kii est-ce que du daf maa bañ ndax ni may tëjee nii metti na te daa mel ne man rek lay tëj ci njaboot gi tëj dafa may moom waajur bi xam na fi sëñ bi jëm mm-hmm. xam na ëllëgam xam na futur mm-hmm. waaye futur googu dafa mel ni moom kilifa gi mm-hmm. eh, di waajuram nekk kilifaam tamit mi ngi koy préparé wax nga tamit ci eh, tàmbali bi moom it sëñ bi sëriñ Touba dafa jëloon boppam rek jox ko waajuram moom itam mu nangu ne dañ maa war a préparer dañ ma dama nangu ne dama war a tarbiyu lii nga xam ni sama waajur teg na ma ci loolu maanaam loolu yëpp préparation la ci ñoom ñaar ñëpp te ku nekk am koo xaman am ku ci nekk am foo toll ci loolu ci préparation mm-hmm. boobu mm-hmm. daf mel ni foofu ngay waxee waaw kay nga xam ne sëriñ bi kon ku mm-hmm. ku ku ñu waajal la waajtaay gi waxuma laa moom waajuram wu góor waaye waajuram wu jigéen wi nga xam ne dafay teel a jógee di soxna jaara sax ku daan waajal sëñ bi la ndax sëñ bi nee na julli guddi xam nga julli guddi bokk na ci ponk yi nga xam ne ahlu tasawuf danañ koy danañ koy faral di farataal dañ koy tuddee sax as saharu muy fag guddi waaye bu ñu wax fag guddi waxuñ toog di xoole nee na soxna jaara moo ko njëkk wax ne ko min da bi saalihiina qiyaamil layli qiyaamul layli ne ko gaañu baax ñi de bokk na ci seen aada guddi bu jotee dañuy taxaw nee na boobu sëriñ bi nee na xamagut taxaw guddi lu mu da dégg soxna jaare di ko wax rek mm. nee na bu guddi jotee damay taxaw ba samay tànki métti ma doxantu ne ba samay tànki métti ma dellu si waaye nee na waaye bi ma gëstoo téere ci laa mm. xam ne buñ ne taxaw guddi mm. di julli wala toog di wérde mm-hmm. nekk ci jaamu yàlla ñu naan taxaw guddi kon ku teel la ku ñu teel a la ci environnement bu mag mm-hmm. na ci environnement boobu ni ko taxam mel ni mu mel mm-hmm. nga xam ne tey jii jamono ji mu nekkoon daan na jaxasoo ak nit nit àdduna daan jaxasoo ak borom yi xam-xam yu mag daan na jaxasoo ak ñu dëkkul sax ci réew mi loo tax culture bu sëñ Tuubaa yaatu booy liir xasida mi da koy gis ndax ci biir euh, histoire bu sëñ bi di nga gis ne daana jaxasoo ku naar bu ñuy wax Ibrahima al Baghdadi yi Baghdad boo ko déggee rek xam ne ba ba Baghdad Irak la daana jaxasoo ku ñuy wax Baay Xaadima Jaxate Kala muy ku mag di mbooy juru sëñ Bay Jaxate mi di ko tagg ku ñuy wax Maam As Kamara ca Ndar jaxasoo woon naag moom daan na jaxasoo ñu baree bari ci biir réew mi ak sax ci biir ci bitim réew mi mii di Sénégal yooyu yooyu booloo nag moo jox sëriñ bi cofeel goo xam ne mu mu mu sopp ko taay taayifatu ahlu tasawuf maanaam ñooñ tasawuf bëgg leen daan jël seen téere yi di ko liir bidaayatul hidaaya bu imaam Ghazali nee na moom la njëkk am ci téereb tasawuf gannaaw ga def koo jël woyaat ko bi fi waajuram jógee nag moom moo war a téye daara ji bi fi waajuram jugee sëñ Moustapha Lo nee na dem na gànnaar ab diir daal di dellu siwaat boobu mu ngi dénk daara ji ñoom sëñ Daam Abdourahmane Lo ak ñeneen mag nga xam ne ñu ngi woon ci daara ji ndax bu ñu jàpp ne ñiy lu ci sëñ Tuubaa ñu ñoom ñëpp dañoo jógee ci àll ba ñëw lu si am na ñoo xam ne ci ñoom ñoo xam ne ñoo sëñ bee doon jàngandoo ñoo nekkandoo woon ci daara ji waajuru sëñ bi di leen jàngal waaye bi waajuru sëñ bi wàcceeb liggéey ñibbiwuñu dañoo toog di xaar sëñ Moustapha Lo day arrêté wax ne kon war na ñoo xam ne am na leneen lu ñuy xaar lu dul xam ndax xam-xam am na feneen bi waajuru sëñ bi wàccee liggéey pourquoi pas ñu dem ci jeneen daara lu tax ñu toog di xaar te xam nañ ne bu dee jàngale ni ko sëñ bi mënee la am ñu ko mënee noonu nee na kon xamoon nañu ne sëñ bi doxin wu yees lay indi. Mhm. bis bi nga xam ne nag mooy at at at mi waajuram wàcceeb liggéey ba mu ba ba at ma dellusee. Mhm. ba ca déwén sax sëñ Moustapha Lo nee na ci weeru koor wa ba weeru koor wa laylatul xadri dafa tombé woon nag comme laylatul xadri ni mu tombé mhm. ñaar fukk ak euh, juróom-benn ñu fanaanee ko muy ñaar fukk ak juróom-ñaar comme bis ni tey jii sëñ Tuubaa xëy ci waxtu yoor-yoor daal di woo mag ñëpp ñu dajaloo. mu daal di taxaw xutba leen xutbaam bu siiw boobu nga xam ne histoire dootu ko fàtte. daal di leen wax ne leen suñu borom moo ma jaar moo jaare ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amara nii rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafzaun wahima faman arada al xayra fii kiltay daarayni falyaluz biha Dieu m'a donné l'ordre de proclamer que je suis un asile et un recours quiconque veut le bonheur d'ici-bas et dans l'au-delà doit se réfugier de moi suñu moo ma jox ndigalal naa woote xam le ne làqatukuwaay la àdduna ak àllaaxira ku bëgg loolu kay làqatu ci sama gannaaw da nga ko am comme ni nga ko bëggee daal di wax moom ci boppam ne sama yoon wi fi ma ko tàmbalee mooy jébbalu moo tax jébbalu mënta ñàkk daa wax ne awalu mabtada bihi alqadimu taalluqun bi man lahu taqdimu wa azhara alxidmata ama jaysasi waaye wa qalbuhu admaraha min asasi ne na man mii di sëñ Tuubaa fi ma njëkk tàmbalee sama yoon wi mooy taalluqun mooy ut sëriñ daal di aju ci moom muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam koo aju mu ne bi man lahu taqdimu ka nga xam ne yàlla da koo jiital kon yoon wi jébbalu moo ci njëkk bi sañ bi wootee ci la mag ñi commencé ñoom ñëpp nag ñëw di jébbalu wax nañ ne ki njëkk a jébbalu mooy sëñ Adama Gueye sëñ Adama Gueye sëñ Moussa Lo sax nee na sëñ Touba dafa wax ni awwalu man amana bi wa baayaani Adama Gueye ki ma njëkk gëm njëkk a jaayanteeg man mooy sëñ aadama Gueye gannaaw ga ñoom sëñ Ibra Sarr Njaañ ñoom sëñ Daam Abdourahmane Lo ñoom mag ñooñu uur bu njëkk bi daal di ñëw ba ci ki nga xam ne mooy Serigne Omar Diop nga xam ne njuga xari la tuddoon dafa ñëw fekk 39 taalibe mu jébbalu daal di mat 40 sëñ Tuubaa ne ko noo tudd mu ne ko Njuga Xari mu ne ko Seydina Omar ibnul Xattaab keroog ba muy dugg si ci lislaam 39 la fa fekkoon ñëw muy 40 mu ne ko kon dama lay tuddee Omar moo daan ne ko da Seydina Omar daan ne ko Omaru afdalu noo tudd mu ne ko Njuga Xari mu ne ko Omar a gën Njuga te sa mbir ak mbiram dañoo dëppoo waa kër sëñ Omar Diop maa ngi ciy ziare ñoom sëñ Abdou Diop imaam ak ñoom ñëpp ak njabootam njabootam gu baax waaye sëñ Pape yoon wi noonu la ko sëriñ bi sosee gannaaw bi mu ko sosee nag ci la tàmbale di teg taalibe yi ci yoon di leen tarbiya tarbiya bu mucc ayib di leen tarbiya tarbiya bu sell di leen tarbiya ci wéet ñoom ci seen jëmmi bopp di wéet ci ci woote googu noonu sax yaa ngi ñëw ci biir ci fond bi mhm. waaye ba mu ba mu ba mu ba mu ba mu wootee ba mu sosee lu ni mel mhm. lu tax mu tànn tur bi mhm. murit xam nga baatu murit day baat boo xam ne baat bu fi yàgg la boo gisee ku mel ne Cheikh Ibrahima Niass yàlla na ko suñu borom dolli leer da ngay dem ci téeréem fekk ay taalibeem mu leen di tuddee dangay ngay dem ci Sidil Hadji Malick si muy jëfandikoo baatub murit mm-hmm. te pourtant mën naa am jubluwut murit gi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa woote mm-hmm. baatub murit mooy baat bi nga xam ne mooy baat bu officiel bi nga xam ne moom la ahlu tasawuf di tuddee képp koo xam ne danga am sëriñ topp ko almuridu mooy ku bëgg l'aspirant l'aspirant lañ koy wax ci tubaab foog naa mm-hmm. mooy ki nga xam ne dafa bëgg benn mbir di ko xeeñtu loolu mooy almuridu ndax ah, mu ngi jógee ci verbe araada araada mooy bëgg na namm na mm-hmm. nga bëggoon wax ne man uridu shurba damaa bëgg naan mm-hmm. danga nga da namm naan naan googu nga bëgg a nga bëgg a def moom nga exprimer ci baatu uridu bu fekkee ne ki nga xam ne dafa bëgg yàlla namm yàlla mm. al muridu la ñu koy tuddee al muridu mooy ki nga xam ne dafa bëgg yàlla namm yàlla mooy li ñu di wax ci yoonu jaamu yàlla mm-hmm. pense defe naa loolu la ko nit ñi waxee am na ñu bëri ñu naan murid bi turu murit bi mooy yoonu jaamu yàlla. yoonu jaamu yàlla. Mm-hmm. ndax xam nga ki nga xam ne dafa bëgg. Mm-hmm. faw day jug dox. Mm-hmm. dox boobu muy dox na ci yoonu yàlla lay dox. donc tey boo boo bëggoon a dem Touba doo toog sa kër rek ne damaa bëgg a dem Touba. da ngay jug laajte oto yi jëm Touba boo yorut oto. jaar ci autoroute bi daal di dem daa di dem Touba. léegi looloo tax nag ñu tuddee ko al muridu looloo indi baatub murid. te boo demee ci alxuraan ba tey da nga cay fekk baatub murid. wala tatrudi lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu foofu dafa ñëw ci verbe mais fii dafa ñëw ci mm. non nga xam ne fee verbe la fa moom yuridu na waaw kay dañ ko conjugué mm-hmm. fii fee mën nañu wax ne dafa nekk infinitif mm, mm. dafa wax ne yow suñu borom dafay wax ak yenent bi sallallahu alayhi wa ndax boobu yenent bi dafa woote am ci màkka ñoo xam ne ay notable lañu du ñu ay nit ñu ndaw bokk ci ay yax bu rëy ci ni ñu koy waxee mm-hmm. yenent bi bu ñëwee day toog ak ñoo xam ne ñi ay silmaxa lañu ñi ñu ñu ñu ñàkk lañu léegi kilifa yooyu du ñu nangu bu ñu ñëwee di toogandoog ñi nga xam ne seeni jaam lañu woon ca démb léegi yeneen ñooñu dañu bëgg yeneen bi dàq gone yi dàq ñii nga xam ne ñoom ay jàpp nañ ne tolluwuñu maqaama pour mën a wéet ak ñoom wax ak ñoom ngir seen daraja yàlla nag ne ko lànkal bul def loolu wala tatrudi lazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi bul dàq ñi nga xam ne donte amuñu xaalis donte ñu ñu laago lañu donte ñu gumba lañu waaye waxtu wu nekk ñoo ngi ci seen borom subaak ngoon gu guddeeg bëccëg ñoo ngi tal yàlla bu leen dàq mukk ngir dabu ñee nga xam ne xamoo boo leen waaree danañu gëm wala duñu gëm suñu borom daf leen a melal ne yuriduuna wajhahu ñii ñu bëgg ñu bëgg jëmm yàlla lañ ahlu tasawuf nag daal di jël baatu bu murid daal di ne al muridu ki nga xam ne dafa bëgg jëmm yàlla te boo seetloo ñooñu alxuraan doon waxal ñoo sos yoonu tasawuf wii sëñ Tuubaa woote yoon ndax 71 la ñu woon nekkoon ci jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wala jumaa ji Abu Hurayrata moo nekkoon seen jiit ñoo ngi leen daan tuddee ahlu soffa boo demee ci mbindum sidil haaji malik si da ngay gis mu naan su mashtaral marbadal mawsula maadilatan min mali siddiqihil maarufi bil karami musallalun suffatan yad'unahu fa bihi yawi ilayhi masakinun min al umami inda taashin nabil hadi yufarriquhum ala sahabati yaati al ahla bil umami li ma ci ñor rek mooy musallalun suffatan suffatan yad'unahu nee na suffa lañ daan wooyee jàkka yonent bi sallallahu alayhi wasallam laataa ñu ko tabax tabaxin wu rafet wi mm. nee na boobu ay banti tàndarma moo ko téewoon xobi tàndarma it moo nekkoon ci kaw nee na moo jub jàkka ji bi muy tàmbale noonu nee na am na ñu fa nekkoon ñu daan daan tuddee suffa muzallaluun suffatan yad'uunahu fa bihi ya'wi ilayhi masaakinu min al-umam nee na am na ci ci xeet bi ay miskin yoo xam ne fa lañ daan yendu di fa fanaan bu añ jotaan yenent bi daaleen leen di tàqale Aboubacar yóbbul diw mu añee sa kër Omar yóbbul diw mu añee sa kër waaye yaatil ahla bil umami ñi ci des ñëpp mu jël leen yóbbu këram bokk ak ñoom la fa nekk mbooloo moomu 71 la ñu woon Abu Hurayrata moo bokkoon ci seen moo nekkoon seen ci seen njiit Abu Hurayrata moomu ku bokk nettali lu bari la ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax wax nañu ne nettali na ci hadis yonent bi lu toll ci ci ay hadis kon ñooñu nga xam ne ñu ahlu tasawuf ñooñu la junay du roy ba sos yoonu tasawuf fi ndax junay du sax sosu tasawuf waaye dañuy wax ne mooy cheikhu taifatu sofia mhm. noonu nag la tasawuf di wéyee ñooñu la Sëñ ci seeni téere di leen di di xeeñtu seenu mboor ba tax tey mën nañoo wax ne sax mu woote yoon wi donte woote yoon wi ndigalul Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci am mm. loolu nag wax ju diis la joo xam ne dana naqare waxe fii ci réewum Sénégal um réewum diingat mi mm. waaye lu wér la loo xam ne ndigalul Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ci am te damaa jàpp ne man mën naa wax ñu weddi ma waaye suñ Tuubaa moom xëy na kenn xam gisut fu muy waxee wax joo xam ne day tuxu mm-hmm. moom waxam laay nettali moo wax ne mm-hmm. wa min ajaib ibni abdillahi salla alayhi bi salaamillahi baaqin adaa ardahu bil awliya ila alqiyamati wa kullun waliya sunnatahu wasaanaha an bidaci tabshirahu qadimahu bi fasdaci wa annahu salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man walaahu wala amarahu salla alayhi llahu fi l ali wa sahbi wa man walaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbalu minhu nusha min ahli zaman wa annahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubashiran bi taxliya hmm. nee na bokk na ci kéimaane yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na moo digal jaamam moo digal liggéeykatam bii ne ko wooteel yoonu murit boo wootee yoonu murit murit yi nga xam ne dañoo war a xam xamal leen murit yi nga xam ne da ngaa war a duy seen ndab duyal seen ndab boo duyee boo raxasee seen ndab ba noppi duy duy ko ñi seen i ndab taqut raxas ko ñi seen i ndab taqut duy ko ba mu fees te ñi wuy si sëñ Tuubaa damay wax na ñaari catégorie yooyu la ñu ñii dañoo ñëw seen ndab taq sëñ bi raxas ndab li def ci ñii ndab yu set te sell lañ indi sëñ bi sëñ bi daal di leen di duyal ñu daal di dellu kon sëñ Pape Maguette sëriñ bi moom bi muy woote yoon wi li tax mu tànn baatu murit nekkul sax dafa mënoon naa wax bamba mm-hmm. tarixatul bambi ya mënoon naa wax mbàkki ya parce que mbàkke la sant <laughs> parce que boo xoolee Chazeli Cheikh Abul Abbas Abul Hasan al Chazeli mm-hmm. ñu ne yoon wi Chazeli la tudd mm-hmm. Cheikh Ahmad at Tijaani ñu ne yoon wi Tijaani la tudd Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani ñu ne yoon yoon wi Xaadir ya la tudd comme moom ba mu ñëwee Cheikh Ahmadou Bamba Mbàkke mënoon naa mënoon naa tuddee bambi mënoon naa tuddee mbàkki waaye dafa bi nga xam ne ca cosaan moom la ñu mës di tuddee képp kuy wëri yoonu yàlla tuddee ko loolu nag day wane ne universalité la sëñ Tuubaa doon incarné kon d'abord li tax muy incarné universalité tey bu fekkoon ne dama euh, jël da ngeen jëloon barab bi ki moom barab bii tuddee ko aw santam day tekki ne xëy na mbirum famille mu ngi dugg waaye bu jëlee barab bi tuddee ko loo xam ne day tekki lu mu réew mépp moom. ñëpp ko bokk ñëpp dañuy xam ne ñëpp a ko bokk. ndax sëñ yëfi moomeelu sa ah, sa moomeelu waaye yëfi ñëpp la. yëfi ñëpp la loolu la mhm. sëñ Tuba esprit boobu la sëñ Tuba dugal ci tur wi. Mhm. ndax mënoon naa wax Bambi mënoon naa wax Mbacki mënoon naa wax Bambi Mbacki ya mhm. wala Tuba wi wala lu ko lu ko sopp loo xam ne ku ko dégg xam ne. saw tur day dellu ci sëñ Tuba. waaye fi mu ne boo nee tarixatul muridiya ñu laaj la ku sos yoon woowu. waaye tey boo tarixatul ñu ne luy xaadire ñu ne Abdul Xaadir al Jaylaani moo ko waaye sëñ Tuubaa loolu moom laal laalu turam laalu ci mhm. turam tàqu ci mhm. mën nañu wax ne daal tur wi daf ko cofe ci alxuraan mhm. waaye dafa bàyyi tur wi nga xam ne ahlu tasawuf ba mu sosoo ba tey murit bu bëgg yàlla di ca dox tur wi lañ ko mas di woowee tur woowu rek la sëñ Tuubaa euh, daal di woowe boo xoolee Cheikh Ibrahima Fall mi ñu koy woowee murit bu mag bi ñu koy woowee murit bu mag bi sëñ Tuubaa it daana daana daana daana daana wax ak nit woowee ko yow murit bi li ko yooyu yow murit bi yow murit bi li ko waral mooy kooku ndek kookoon ab murit la kuy sàkku yàlla la kuy wër yoonu yàlla la moo tax sëñ Tuubaa di ko tuddee murit léegi nag tur woowu moom la ñu jël nag tuddee ko yoon wi nga xam ne ñoom ñëpp al murid yàlla koy la ñu koy wax donte nag saxut ci mbind fenn fu sëñ Tuubaa bindee boppam moom daal di ne al muridiya waaye dafa bàyyi rek baatub murit ba nga xam ne moo moo amoon muy wéy buy bind di ko bind buy wax di ko waxee ba mag ñëpp loolu aada aada ji daal ci daw ñu tuddee yoon wi ak tarixatul murid waaw yoonu murid googu noonu sax boo déggee tur bi mhm. bu ñu ko déggee rek dafa nekk moomeelu ñëpp sëñ sëriñ Tuubaa dafa ko jël rek mu mhm. nekk benn tur boo xamante ni mhm. am na fu ko fekk waaye dafa nekk loo xam ne pour ñëpp la ñëpp ko bokk du moomeel bopp du titre foncier bokk kon mën naa ko waxee noonu waaye tamit euh, ñu gis ne murid bi woote na ci yoon boobu noonu pour jaam yi daal di ciy dox ñëpp di ci dox pour dem wuti ci suñu borom ndigal yi nga xamante ni nag teg na ko donte woote na yoon boobu noonu waaye tamit am na yoon yoo xamante nii nit bu la ca woowee gindi ni la pour nga dem jëm ci suñu borom loolu laa bëgg nag nga dëkk ci xam nga sëriñ bi damay wax waxtu nekk li léppam dafa leer mhm. amul dara ci yoonu sëñ Tuubaa yi lu ñuy tatu ne loo xam ne dañuy calculer nii rek ba xëy dal ci li gars yi naan da cee dal loolu sañ Tuubaa xëyul dal ci. Mm-hmm. moom dafa amoon projet bu leer teg ko. Mm-hmm. xëy atteindre li mu atteindre ci grâce grâce à projet boobu mu tegoon. Mm-hmm. projet bi mu tegoon mooy. moom jaamub yàlla la buy liggéeyal yàlla. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bëgg. daal di wax ne maali siwal muntaxaa lil maalikil waali wasilatan wakafaani kulla ahwaali mu ngi mel ne ku ne damay dem tubaa waaye Range Rover rek laay war nee na man ci yàlla laa jëm waaye bugguma kenn ku jàpp sama loxo ku dul rasulullahi sallallahu alayhi xam nga kon mën naa am am na ñeneen ñuy dem ci yàlla ñu ko fa romb waaye dane déedéet soxlawuma kenn ko jàpp sama loxo rasulullah kese wala nañ ma ba ma fanaan cible moom dafa amoon cible mhm. xam nga ko kon gëm na ne dana àgg fam jëm te gëm na ne ki muy oto bi muy xaar dana ko yóbbu fam mu jëm loolu la loolu la sëñ kon ku amoon détermination gi noonu mhm. bi mu wootee yoon wi moom sëñ tubaa damay wax ne li sëñ tubaa njëkk wax ci yoon wi li sëñ tubaa njëkk a digle mhm. mooy jàng am xam-xam yoonu murit du yoonu réer yoonu murit du du yoonu ignorance yoonu murit yoonu gannaawal xam koo dégg mu lay gannaawal xam-xam di askanoo ci sëñ tubaa sikki sàkkal ci loolu mhm. wala wala wala jàppal ne yàq ko tax a jóg dafa wax ne mhm. moom sëñ tubaa yaqulu ahmadu ila saada yadul mala bil ilmi wal ibada mhm. man sëñ tubaa maa ngi wax yëkkati sama kàddu di woo ne ko boo woowee jaam ñi foo leen jëmee mu ne ila saada ci texe laa leen jëmee bonheur boo xam ne fii lay tàmbalee jëm ak yow ba ëllëg ñu ne ko ana ban yan outil mooy say outil yan jaaruwaay ngay jaar parce que am na ñu la fi jiitu woon alxuraan ji nga jàng ñi la ko jàngal ñoo ngi nii faatooguñu xam-xam bi nga jàng ñi la ko jàngale ngi nii kon yow ban yan lan ban ban ban ban ràññee ko moo nekk ci yow ba nga mën a tëb rek ne da ngay woote jëme ci yàlla mu ne leen ñaari outils yi laa laa am bil ilmi mooy jàng ba ne ar wala ibada wëlbatiku tàggat xam-xam bi di ko jaamoo yàlla te looloo fi jafe woon mag ñi dañoo amoon ñi ay tënk donc ko tënk jàjju ba jàng julli bay loolu la ñu doon tënkee waaye daan nga jàngal nit ba ba njàng mi mokk mu wëlbati li ngi koy tere mu di ko def ndax yow jàngalekat bi toog di jàngal say taalibe mm-hmm. alkazibu xaraamun wala xibatu xaraamun wan namimatu kazalika fenn dafa araam jow dafa araam rambaaj naka noonu yow sëriñ bi leen di jàngal sa mbaxana mi foq doo ngay di la wokkante naan sëñ bi mbaxana mi daa foq xam nga ne war ngaa changer stratégie ndax li ngay jàng duggut li ngay jàng la duggut mm-hmm. parce que ñi ngay jàngal li nga leen di tere ñu ngi koy def ci jotaay bi yow sëriñ bi jàngale jëw dafa araam ba noppi toog sa mbokkum sëriñ daara ñëw ngeen di jëw beneen sëriñ daara taalibe taalibe yi toog di ko dégg xam nga ne li ngeen di jàngale jaarul yoon waaye sëriñ Tuubaa daa fexe ba lu mu jàngal mag ñi dañu koy pratiquer à sant pour cent ba noppi ñuy doog a jàll ci loolu. te loolu ne jàng jëfee. jàng jëfee. naa mm-hmm. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la réew loolu. Mm-hmm. ndax saxaaba yi dañ ne. ñun de dañ daan jàng ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye balaa ñoo ñëwaat di jalaat beneen aaya dinañ fexe ba aaya bi ni ñu mokkalee texte bi ñu mën suñuy cër làggi ci pratique bi ñu mën koo pratiquer à cent pour cent doog a mën a ñëwaat di jëlaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam beneen dars kon li njëkk ci ab murit li sëñ Tuubaa soññe mooy na jàng ba xam fi muy teg tànkam wala takun fii kulli yawmin taarika taalluman summa bihi amal nasika la wax nee na bul bàyyi jàng mukk benn bis bu mu ñëw te dolli ko woo ci xam ndax yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne man yonent bi bu bis ñëwee jant bi so ba go ba ba ba ba fenk te dollikuwuma ci xam-xam yàlla bu yàlla barkeel bis boobu moo tax sëñ Tuubaa ne yow murit bi bul xëy suba ba ngoon te dolli koo jàng xam-xam daal di cay tegaat ne képp koo xam ne wax nga ne maay sa sëriñ ab lettre la bind lettre boo xam ne boo demee ci Irwa un Nadim di téereb Cheikh Mahamadou Lamine Diop Dagana di nga ko ca fekk dafa wax ci biir lettre bi yooyu lépp ay condition la ci yoonu murit dafa dafa wax ne képp koo xam ne charte yi wax nga ne man maay si sëriñ man mm-hmm. sañ tubaa di ma tuddoo mm-hmm. maa ngi lay digal ndigal lii mm-hmm. na nga dem jàngi li mënta ñàkk ci sa faratey jëmm faratey julli faratey koor faratey natt asaka ki naam lépp lu mu mukallaf bi di def ak atey laab ju sango farata jàpp tiim na nga dem jàngi ko bi mu waxee loolu ñu jàpp ne fa la yem mu ne wa inni takallaftu lakum wala kunna bi tawalifa yakunu fiha jamiu zalika man sañ tubaa man mi leen digal ngeen jàngi ji loolu dinaa leen bindal ay taalif yoo xam ne li ngeen bëgg noonu da ngeen ko ca fekk bi ma ko waxee tasawudi sixaar yi jazbatu sixaar yi masaalikul jinaani eh, eh, téere yu dul xaaj yu dul jeex sëñ Tuubaa bind ko ci loolu mu wax ne nañ ko jàngi daan ne seetaanu leen ngeen daw di ko jàngi ci keneen maa leen di bindal téere yi mu nekk xanaa kooko wàccoon ak ñun ñaareelu sart bi mën nañoo jàpp ne première sart bi kon mën nañoo jàpp ne mooy dem jàngi gannaaw ga sëñ Tuubaa digal murit bi waxtu wu nekk muy saxoo jàng alxuraan waxtu wu nekk muy saxoo jàng alxuraan dafa wax ne moom sëñ kullu muridin bi yàllusu bépp murid boo xam ne nee nga maay sa sëriñ man sëñ Tuubaa fal yu dim nanga nga saxal tilawatan li xayri zikrin xadul sim di jàng alxuraan daal dina wax ne adim tilawatan lisal kitaabi walaw salaasatan min al min al bi fii kulli yawmin duuna hijraanin kama nee na yow murid bi na nga saxal di jàng alxuraan bis bu nekk donte ñetti isib la xam nga donte nangam mooy lum néew néew néew néew minimum noo ne donte ñetti isib la bis bu ne nanga saxal di jàng euh, alxuraan yow murid bi gannaaw ga sëñ Tuubaa soññe ci yoon wi ci ci jawharu nafis euh, wala ci ci ci euh, nax ju xada alxaaji boo demee moo ngi cay soññu murid yi ne leen bu fexe leen ba bu nit ci ñëw ci yéen di sàkku aaju delloo loxo yi neen fexe leen ba fu ngeen gis sëriñ buñ naan ab sëriñ la di kilifa na ngeen ko liggéeyal na ngeen ko jox addi ci bu ngeen ko mënee na ngeen ko liggéeyal sàkku ñaanam mm-hmm. xam nga kooku kon xatalut kon foo déggati murit boo xam ne day sabooti kilifa ak jàmbur aju ko ci sëñ Tuubaa na ko acc fu ko neex foo dégg murit boo xam ne kilifa ak jàmbur da ko da koo santub liggéey mu lànk aju ko ci sëñ Tuubaa foo dégg murit boo xam ne kilifa jàmbur day ñaan mu ne du tàllal aju ko ci sëñ Tuubaa kooku leneen la waaye du murit dafa am warma waaw ku am warma la moom sëñ Tuubaa te ku yaatal la te ku ibbiku la moom sëñ Tuubaa ci àdduna mm-hmm. ndax dafa xam fi jamono toll mu tarbiya murit yi noonu xam nga sëñ Tuubaa fi mu ne xam fi jamono toll rek moo ngi àgg ci jël jël yoon wi tuddee ko murit baat bi ñëpp bokk mm-hmm. yemul ci jël alxuraan ji ñëpp bokk daal di ci soñu murit yi mm-hmm. te damay wax waxtu wu nekk ne gis nga sëriñ bi bi mu ñëwee mm-hmm. jàng na xam-xamu fiq ba am ci am lef moo ko lee hadis mënoon naa ñëw ne daa sos ngirum fiq mënoon naa ñëw ne daa sos ngirum leneen waaye dafa ñëw lan la sos ngirum tasawuf ngirum tasawuf la sos kon loolu lu muy tekki mooy day yeesalaat ngirum tasawuf te loolu bind na ko ujaddidu tawxida wal furuwa maa tasawufin xawaa buruwa man sañ tubaa damay yeesal tawxiid damay yeesal tasawuf waaye nag ci yeesal gi ma koy yeesal man sañ tubaa xàll-xàll yi nga xam ne daf cee amoon dama cee indi geneen yeesal geneen coppite goo xam ne bokkut ak yi fi amoon kon murit bi gannaaw bi mu bi mu jébbaloo saxe dëkkee jàng alxuraan na gëstu xam-xam ba xam fi mu war a teg tànkam na na ràññee environnement bi muy dund na ràññee doomu aadama yi muy dundal sëñ Tuubaa ne ko ñetti catégorie lañu amuñu ñeenteel ku ci nekk am na traitement boo ko war a traité ñu ne ko ñett ñu mu ne ki mag ngay dajal ci mbedd mi ak ki nga mag ki nga maaseel nga ne ko ki ma mag nu may jëflante moom mu ne ki mag de xanaa war na la mat baay nga ne ko waaw mu ne la jàppee ko muy sa baay kenn du ñàkkee war ma sa baay nga ne ko ki ma mag nag mu ne jàppee ko muy sa rakk wala sa doom sa rakk ak sa doom moom doo ci doo ci lor kenn nga ne ko ki ma maaseel mu ne jàppal ne yaay moom mooy yow te kenn du jël lor di jëmee ci sa bopp nii la sëñ tubaa réglé problème bi moo tax foo leen fekk ñoom ñi sëñ tubaa yar te muy dëgg ci te muy dëgg bu ñu ko waxee muy dëgg ñu topp njàngaleem sëñ tubaa doo leen fekk mukk ñuy xuloo doo leen fekk mukk ñuy wax wax ju seen yoon nekkut doo leen fekk mukk ñuy mel melokaan woo xam ne melokaan wu lislaam tere la ndax yoonu yoonu sëñ Muntaxaa dafa wax wax ju am solo sëñ Muntaxaa dafa waxoon ne mm-hmm. bala ngaa nekkub murit da ngay nekkub jullit ba noppi muy wax ju mat a seetantal bala ngaa nekk ab murit da ngay nekkub jullit ba noppi li yenent bi indi sallallahu alayhi wa sallam ne nii la ab jullit mel murit day mel noonu ba noppi di jéem a yokkule yokk loola loolu moo di ab murit maanaam murit murit mooy musulman plus loolu mooy loolu mooy murit waaw ndax dane balaa ngaa nekkub murit hmm. da ngay nekkub jullit ba noppi hmm. jullit mooy li ñëpp bokk yow bu ko defee hmm. ñëpp li ñu li ñu maase bokk lislaam dafa wax bu ñu la tooñee boo mënee fayu na nga fayu bu la saaga boo mënee fayu na nga fayu daal di ñëw ne bu ki la pes ci lexum ndeyjoor bi jox ko ba càmmoñ bi ne ko pesal fii tamit sëñ Tuubaa ñëw daal di yokk niveau bi moom mhm. daal ne ki nga xam ne nee na ci man la bokk mhm. ni may xamee ne noppi naa ci liggéey bi may nopp liggéey ci moom bu doon dox ci mbedd nit fette ko gannaaw pes ko bu geesoo ba xam ka ko pes mbub ma daa tam daa bula mhm. nee na tas na sama yaakaar xam nga niveau Seydina sa kawe na waaye biyee gën a kawe boobu ndax ki ngay wan lexum ndeyjoor bi yaa ngi ah. di nga gis lim sol sëñ Tuubaa nee na ki la romb pes la boo geesoo ba xam sax li mu sol nu mu mel nee na tas nga sama yaakaar ci yow foofu la sëñ Tuubaa teg murid yi digle na jàng digle na jàng alxuraan digle na gëstu xam-xam digle na wormaal suñuy ñaari waajur am na jëmm joo xam ne ay waajuram dañoo ñëw ci sëñ Tuubaa ne ko diw sàngam day dafay nekk ci lu dul ndigalal ay waajuram sëñ Tuubaa ne ko na ñëw dellu ca kër ga am na koo xam ne daa am ku ñëw ne ko diw day dafay nekk di liggéey te dongab jàmbur la sëñ Tuubaa li mu fi jot a liggéey nañ xool ponkal mu toll ne moom toll ci mu lef bu fekkoon dañ ko ko koy day liggéey journalier la ñu di ko ko fay nañ xool loolu njëggi nu muy toll ñu xool ko sëñ tubaa ne nañ ko ko jox ci alal te kooku kat ci coobareem la doon liggéeyee sëñ tubaa tere na yàq derub jàmbur ànd na naag murid yi bis eh, di dox loolu Cheikh Ahmadou Lamine Diop Dagana moo ko nettali ci téereem bi mu tuddee an-Nubzatul Mubaraka ñuy dox di dox di dox di dox ba waxtu ti waxtu waxtu njolloor fekk am na ku ñu dajaloon ci suba gi am jëmm ju ñu dajeel jëmm ji ne leen ndax dajeewoo la nag benn waay am ci taalibe yi ku ne ko ah kay dajee nañoo ko waaju gàtt te ñuul mu ne ko nu mu jaar mu ne ko nii la jaar waaju wan ko gannaaw di dem sëñ Tuubaa geesu taalibe bi ne ana ko wax loolu mu ne ko man mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko kookee di di ko wëri bu mu la bu mu la bu mu la raw soxla si mu am ci moom yow am nga am nga ci waa ji soxla ju ko mu ne ko ju mu ne ko da nga jëw hmm. luy sa yoon ci gàttaayam ak ñuulaayam demal ne ko damaa wax ne dangaa gàtt te ñuul jéggal ma bu la jéggalut bul ñëwaat fii ci samay taalibe bu la jéggalee na nga ñawaat waaja a ànd ak waaj di ko wër di ko wër ba gis ko ne ko damaa wax ne dangaa gàtt te ñuul sama sëriñ nee na boo ma jéggalut ba ma ñëwaat mu ne ko jéggal naa la muy doog a ñëw xool boobu éducation kooku kon foo dégg ci réseaux sociaux kuy daggi saaga ak attaqué nit ak wax wax ju ñaaw na ut fu mu bokk waaye du ci sëñ Tuubaa koo xam ne dangaa wax nit danga danga dangaa wax nit ki ni mel rek ndax ki gàtt te ñuul daa gàtt te ñuul nga wax ko rek sëñ bi ne la génnal boo ko boo ko jéggaluwul bul ñëwaat samay taalibe waaw kuy saaga nit nag te te jotewu leen dara nag hmm. est ce que kooku kon mën ngaa wax ne da ngaa bokk ci Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa accepté la hmm. daan yar ànd ak benn ci kenn ci ay taalibeem ba ma juumut sëñ Masamba Diop Samb la hmm. ci benn loolu sëñ Madou Lamine Diop daga naa ko nettali ci An-Nubzatul Mubaaraka ci benn taalibeem bu jigéen bi ñu ñëwee ci kër gi soxna si daal boobu amoon na xeetu repas boo xam ne soow lay doon dax bi day ne ci kaw ñu jël mburu mu tàng teg ko ci kaw bu ko defee da ngay xar mburu mi jël dax bi dugal ci biir xam naa mbokk sàlleen yeeg yooyu danañ xaw a doy waar bu ko defee noonu lañ koy xewloo repas la bu xewoon ci réew mi bi ñu bi ñu leen bi leen ko tegalee daan ne bisimilah xewlu leen soow maa ngi noonu ak ak mburu mi sëñ sëñ sëñ sëñ sëñ bi nga bi sëñ Tuubaa àndaloon ba mu sañ ma Masamba Diop Sam la daal di yóotu mburu mi bëgg a xar def ci dax bi sëñ Tuubaa ne ko ndax soxna si dafa tudd dax bi mu ne ko tudd ko dem Mbàkke waaye xam nga mu ngi mel ne ku la tegal ceebu jën <laughs> ne la bismillah ceeb baa ngi noonu nga lekk ceeb bi ba fa ba fa légumes yëpp ne tudd ko hmm. mu ne ko Mbàkke kat tudd ko waaye bu ko tegee parce que dafa bëgg ñu lekk ko hmm. sëriñ bi ne ko tee tee tee ngaa yem ci li mu tudd rek ñu xéewloo mburu mi xéewloo soow mi bàyyi fa dax ba bi sëñ bi sëñ Masamba xëy Jóob Saam xëyee suba demaat fa hmm. soxna si dana ko mën de xaw ma ne sëñ bi bëggut ab dax kon sinon du ma ko teg ci ndab li nee bi mu ñëwee wax ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa ko waaw waaw noonu la de maanaam di di di di sàmm sàmmlu ba bàyyi fa lala lew. Mm. moo gën di topp njort ba lekk loola lewut dégg nga wax ji. mi ngi jàngale nit day laal lu mu lew. Mm-hmm. day dugg ci luñ ko wax. Mm-hmm. bu mu dugg ci luñ ko wax. bu mu laal luñ ko wax bu laal luñ ko wax. lu mu moomul ku daan tere tooñ la moom sëñ Tuubaa. boromam daf ko yëg wala yëgu ko. Mm-hmm. am xar sax boo ko ko indiloon suñu borom da koy xamal ne xar mii mës naa lekk ci toolub jàmbur lu lew du jël xar mi. alal ju lewut sax boo ko ko indilaan da koy faxas ba day faxas la lewut la bala lew mu bàyyi ko fa lu mu la faxasal rek xamal ne daa boromam da ko détecteel xamal ko ne ko ah. lii lewut daa am jëmm joo xam ne dafa mës a yar am xaram mm. ba xar mi màgg mm. mu di ko womat indi ko njaareem mm. bi mu ñëwee njaareem daal di yeew xar mi daal di du di dugg am di dugg ci ay yitteem fi mu yeew xar mi ci toolub jàmbur la xar mi yootu ci xobi dugub bi ñetti xob daal di koy lekk mu ñëw indi xar mi te bi muy yar xar mi ba bi mu koy indil sëñ Tuubaa xar mi mës ta dundee lu lewut mu ñëw ne ko xar mi de maa la ko indil maa ko yar ci sama loxol bopp xar mi lu lew rek la daa lekk sëñ Tuubaa ne ko loo ci jublu mu ne ko bëgg laa jox xarum tabaski mu la kenn mës ta jox sëñ Tuubaa ne ko lijjantil ñetti xobi dugub bi jàmbur yi mu lekk ba noppi doo ko wax looy wax nga xam ne fas yéene wut a jël xar mi waaye boromam a ngi koy xamal ne ko xar mii day lekk na alali jàmbur te xar mu lekk alali jàmbur si kenn du ko tër ci kan ci kër sëñ Tuubaa gi kon daal yoonu murit yoon la woo xam ne yoonu yoonu universel la yoon wu yaatu la yoon woo xam ne xatalut benn jullit mm-hmm. yoon woo xam ne tuumaalut benn jullit yoon woo xam ne ci teggin la tege mm-hmm. yoon woo xam ne ci xam-xam la tege mm-hmm. yoon woo xam ne ci tasaamux la tege tasaamux mooy euh, taqabulul aaxar maanaam fexe ba ki nga xam ne bokku leen pas-pas nga accepté ko dinaa ci nettali beneen beneen xiis sax xam naa ne foofu la ñuy ñaanee euh, ku mel ne Sidil Hadji ci di mbokkum Sëñ Tuubaa ñu amoon relation bu rafet gannaaw bi nga xamee ne ñenn ñi nga xam ne jëm nañu jàngi yeneen xam-xam yoo xam ne xëy na yu leen di influencé ci weddi la ñu ñëw fii di jaxase réew mi ci la yenn yi sax commencé jug ñenn ñi xamut di ñaawal seen diggante ñoom ñaar waaye seen diggante diggante bu ko gënoon a rafet amut dañ daan yabalante ñoom ñaar dajee nañu ñoom ñaar sëñ Tuubaa ne ko jiite ma Maodo ne ko jiite ma ku ci nekk ne sa morom jiite ma keroog Maodo mujj jiite julli ga sëñ Moussa Ka dafa wax ne Maodo di Bamba Bamba moo di Maodo ku leen di féewale xamulooy wird ngir Mati Mbàkke may sëtub maam maaram mooy ndaye Ousmane bàyyi Maodo maa ko xam lii la ñu bokk mhm. ba noppi bokkaat toolub lislaam bi bokk lu ñuy yeesal mosu ñoo réeroo mhm. alaaji Maalik si daa yebal ay taalibeem ñu doxle loo nii te ba noppi ne leen bu ngeen dëppee na ngeen jaar ca sëñ Tuubaa nuyu ko doo a ñëw bi ñëwee am taalibe bu ne ko ñun day Sidi Alaaji Maalik si moo ñu yebal mhm. waaye man sax bu ma yebalutoon doon naa doon naa rëcc dund ba faatu te teguma la bat sëñ Tuubaa ne ko boo amoon man lay gën a naqari woo ne leen nañ leen jàngal xasida bu doon bu doon bu doon bu doon sama genre gi fanatisme bu la jàppee da ngay jàpp ni moom ab tijaan la waruma ah. ko jàngal xaside yi ah. ah. Sëñ Tuubaa mi bind xaside yi moo woote ñuy jàng xaside yi xaside mi na lawhil mahfuus ba mu jàllee am na kàddu gu ca teg waaye ñooñu ndaw yi Alaaji Maalik Si lañ ba ñëwee Sëñ Tuubaa di leen berndeel jàng xaside yi loolu di lu kawee loolu yëpp lu ñu ciy déggee mooy Sëñ Tuubaa ku yaataloon la foo dégg ci ci réseaux sociaux yeeg ci mbedd meeg kuy daggi saaga ak di wax wax ju ñàkki teggin jàppal ne loola moom kër ndayam ak baayam la ko jàngee waaye yoonu murid jàngalu ko loolu mhm. léegi nag li yàq yoon wi sëñ Pape mooy mhm. euh, da ngay gis ndaw loo xam ne Dakar la juddoo mhm. fi la yaroo ci bulo bi la nekk màggaluk Touba jot mu dégradé dem màggaluk Touba dellu si ci yoonu murid lu dul statut léegi moom day nit ñi dañ koy considérer que ne moom mooy représentant yoonu murid te kooku représenté wul yoonu murid jotee ñooñu rek ñooy ñooñu la ñuy dégg ñooñu rek ñooy xam nga fi mu ne ab sénégalais dëkkee fa tux dëkkee fa naan sàngara dëkkee fa def lu bon est-ce que day tax bu président Macky Sall jógee fii air air bi taxaw mu dugg ci moom Marème Faye Sall wàcc ci personnalité ñu gàttandu leen mm. est-ce que président Macky Sall ak sénégalais boobu nekk foofu di yàq deru Sénégal yam nañ da xam ne kon ñii yemuñu kon waroo jël sénégalais boobu di ci àtte président bii di Macky Sall ndax nii mu mel melokaan wu bon yi Macky Sall jàngalu ko ko mm-hmm. te jàngewu ko fii ci réew mi mm-hmm. kon daal euh, ñoo ngi Eh, ci bis bi nga xam ne mooy anniversaire sosub yoonu murit mhm. Serigne Touba woote woon ko ca Mbacké Kajoor mhm. en 1883 mhm. eh, tey 2022 di at yu baree baree bari foog naa téeméer at ak fanweer ak nangam it fanweer yi tegal na muy yoon woo xam ne yoonu lislaam la yoonu sunna la yoonu yoonu rafetal la yoonu jokk mbokk la yoon wuy digle jàng alxuraan la yoon wuy yoon wuy digle fonk sa ñaari waajur la yoon wuy digle liggéey la tamit lu particularité dafa lu particulier dafa am ci yoonu murit mu mm-hmm. yoonu murit du la wax ne del jaamu yàlla kese mm-hmm. da ngay jaamu yàlla boole kook liggéey da ngay jaamu yàlla boole ndax mag ñi nekkoon sëñ kër sëñ tubaa si mm-hmm. ne biir na koo xam ne mooy ñaw yëre sëñ tubaa yi doo dégg ñu ne tailleur sàng ma ko daan ñawal ki daan ñaw ci taalibé la bokk ci ci biir kër gi la nekk daawuñ génn naan marseem jaareem ba lañ jëndee dàll yi déedéet jaafare yi muy soxla ki koy liggéey ci biir kër gi la nekk lu ci nekk am na ku ko koy liggéeyal ci biir kër gi te ñooña loolu moo doonoon seeni métier kon yoon la woo xam ne euh, yoon wu matale la yoon woo xam ne mu ngi commencé daj àdduna nag yoon woo xam ne nit ñaa ngi koy découvrir jéema a découvrir ci ci ci àdd ci tubaab yi naar yi mm. jamono yii ñu toll gis nga bis bu nekk ngay gis ay délégation di jógee ci ay réew di ñëw siyaare ci sëñ Muntaxa ak di def ay témoignages ci sëñ Tuubaa mm, mm. loolu luy tegtale na yoon bi moom day yokk rek. waaw day yokk rek jëm yoon moom kanam la jëm rek day yokk rek waaye du jël ginnaaw mukk. waaw sëñ Tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam la am. doy na ci tegtal ki ñuy wax Idem Kojo moom wax jooju mu wax ci yoonu murit. Mm-hmm. daa wax ci sëñ Tuubaa daa di wax ne l'Afrique n'aura rien à envier aux autres continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie d'hommes telle que celle de Cheikh Ahmadou Bamba. Mm-hmm. nee na Afrique lu ñuy doyee idée keneen bu ñu sukkandikoo ci ci bosub kenn ci seen i doom mooy mooy mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul sallallahu alayhi wa sallam sëñ Bamba mm-hmm. yàlla na ko yàlla yokk yokk leer. Mhm. te fim mu ñu teg. Mhm. yàlla ñu suñu borom gën a gindi. Mhm. ñu topp ci loolu. ci yoonu murid murid murid muridisme boobu. ndaxte comme ni nga ko waxee rek kàddu la koo xam ne kàddu bu mu yëkkati la waaye c'est universel. muridisme c'est universel c'est partout. te partout boobu noonu. Euh, ni mu yaatoo noonu képp ku ci tegu rek. incha allahu rabi. Euh, da danga jëm ci suñu yoonu borom bi nga xam ne la mu woote mooy jaamu yàlla. liggéey war ma. am tamit euh, yar. teggin loolu yëpp tënk ko fii. ci njàngaleeb kilifa gu tedd gi xanaa moom dañ koy gërëm ñu gërëm ko. Mhm. moom moom ku tedd gi Serigne Touba moom Serigne bi waaw. moom de ku ko gërëm ku ko gërëmut foog naa moo bokk. suñu borom dafa wax ne radiya anillahu mhm. war rasulu wa ahlu baddin wa ataani suulu man yàlla nee na ma jërëjëf yenent bi nee na ma jërëjëf ahlu baddin nee na ma nee na ma jërëjëf sama soxla yëpp faju na kon ki ko naan jërëjëf sax yàlla ci boppam ak yenent bi ak ahlu baddin ñoo yowul bëtti ko naan la jërëjëf ndax yéen a bokkub liggéey <laughs> buñ jërëjëf rek suñu borom ne jërëjëf yonent bi nañu jërëjëf kon ñu ngay gërëm bu baax a baax a baax a baax moom euh, Serigne Moustapha euh, Saliou Sow mm-hmm. moo nekkoon ñu gan waxtaan dafa neex waaye nag la ma lay xamal mooy mm-hmm. bàyyi naa la nga yaatal ci waxtaan bi am yenn ponk yoo xam ne bëggoon naa ci tuuti gindeeku. Mm-hmm. Euh, gën la gën a gindi nit ñi. Mm-hmm. waaye dafa mel ni ki waxtaan day neex ba nga xamante ni sëñ bi. Mm-hmm. kenn du la bëgg a dog. waxtaan bi neex ba nga xam ne kenn du bëgg a dog waxtaan bi waaye. yoon bi moom mooy mooy li ñuy wax rek. ab géej la kenn mënu koo jeexal Serigne Touba géej la. da ngay wax loo ci mën rek bàyyi waaye sant yàlla bu baax a baax. bañ ko defee. Euh, ci waxtu bi ñu euh, laylatul xadd mhm. tey nga ñëw fi Serigne Moustapha te Serigne Moustapha boobu ñëw fi tegal ci tamit Saliou <laughs> mhm. macha allah am na Moustapha bi am na Saliou ñu ngi lay gërëm bu baax a baax di gërëm euh, sëñ bi Euh, bi nga xamante ni moo moo moo moo la moo la yebal maa ngi maa ngi beral nuyoo it mm-hmm. sëñ Saliou xam ne moom la sëñ Abdou Samad euh, mm-hmm. doon doon doxale ci diggante mm-hmm. koy nuyu bu baax te di ko ziare ñu euh, sama wax Seydina Omar Diouf it di taalibe Maam Cheikh Anta bëgg Maam Cheikh Anta lool maa ngi di ko ziare ak sama wax soxna Kiné Amar ñuy safoo ñu may safoo lañ te ma lool te ma fa ndeysaan waxtu wu nekk daanaka sama ay waxtaan moo nekk ci seen téléphone waxtaan moom nañ jàpp ne waxtaan yi moom di nga di def di faral di def Sénégal lu bare bare bare incha allahu rabbi euh, sëñ bi sëñ Mbàkke sëñ Abdou Samad boobu moom ñun ñoo la ko ñaan hmm. sëñ Moustapha Sari moom dang ñu dang ñu koy délégué rek <laughs> incha allah <laughs> saa yu ñu ko soxlaa rek mu ñëw toog kër gi sa kër la fii mooy fii murit gi la hmm. murit gi mooy ci yoon bi rek dañuy nekk ci yoon bi yoonu njàng mi rek yoonu yoonu suñu borom bi rek hmm, hmm, ñu koy jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal jàmm delluwaat ca daara ja insha allahu rabbi yàlla gën a euh, euh, ñawal xam-xam bi yàlla fay la euh, comme rek ni ñu topp rek comme sëñ bi ni mu ko diglee rek yàlla na la suñu borom fay yàlla na la yàlla na sëñ bi bëgg ci yow macha allah rabbi jërëjëf yàlla nañ ko fekkee beneen ni at muy tamxarit gi ak koor gi mm-hmm. eh, ñu yay jaajëfal bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf Seydina moo nekkoon ci caméra bi mbokk yi yéen tamit jaa ngeen jëf eh, ci li ngeen ñu doon teelu ba beneen yoon incha rab yi